ay ca jërë ngeen jëf mbokk yi nuyu nañ leen bu baax a baax fii ci arène nationale incha allah gis ngeen ñaari champion yi nga xamante ne bii moom laa taxawal Jax production def lu rëy ndax Jax kenn dootu ko présenté ci wàllu làmb heure bu taxawalee komba amateur yi kontaan heure bu tëggee amateur yi kontaan moo taxawal combat bii ngeen gis diggante Ibou Ndiaye Obali ak ngeer bu zap wala ngeer bu wàqi naan mi ngi noonu wante balaa boobu le 22 janvier dafa def lu rëy diggante Liss Ndiago ak ki nga xamante ne bii moom mooy Ardo di combat bu amateur yi xaar buñ ca jógee beneen weekend ba le 29 mu tëgg lutte simple lutte simple nag yaakaar naa buñ koy wax fii ci Sénégal am na borom mise bu mësul am 11 million kon yaakaar naa mbër yi defaraat defaraat defaraat leen bu baax a baax seen ngemb te incha allah ñëw fii ci arène nationale le 29 janvier incha allah ci 11 millions yi Jax Jax production kenn du moom wante dañuy ñëw ci li nga xamante ne bii. moo ñu fi andi tey Nguer bu sab di champion di ndaanaan bëree ak ndaanaan yu bëri ci làmb ji tàkku tàkkusaan bu nekk ci làmb ji yaakaar naa incha allah danañ ñëw waxtaan ak moom léegi waaye bu njaay Obli di xele am fulla am fayda am jom am fu mu teg bëtam lit simple moom tamit mu def ci lu bari wane ci ay preuve am biig rek wane na ci lu baree bari fële ca yaaye macha allah gis ngeen nam fa def di jaaju di matt ay saaku mi ngi noonu ayca damay commencé ci ki nga xamante ne bii mooy Nguer mu nuyoo ak mbokki internet yi salaamaaleykum ngeer waaw maaleykum salaam onze billahi mina seytaani rajim ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant di wax jërëjëf Serigne Touba di sant suy ñaari waajur di nuyu monde entier di nuyu waa Sénégal di nuyu suma adversaire Ibou Ndiaye Obali euh, di ko wax masion spéciale xam nga di la nuyu yéen yéen journalistes yi di nuyu ami collègue di nuyu Jax production Jax production di leen nuyu waa Leewtoo di jaajëfal àdduna di jaajëfal waa Sénégal rawatina waa Pikine dafa am bor nag boo xamante ne dama leen ko amal te dama leen ko war a fay incha allahu rabbi. danañ ci ñëw ci kanam ay ca obli. waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla ñu ngi jóg si bi maa ngi nuyu ñëpp di sant journaliste yi yëpp di nuyu suñu promoteur bi Jax di nuyu suma adversaire bi suma grand frère Nguer waaw di ko ñaanal jàmm bu baax a baax a baax xam nga waaw di ko di ko gën a sant di ko gërëm parce que. gars yi bëggoon nañ suñu combat ñoom ami koogee promoteur yëpp dañoo ut wër adversaire ba sonn gars yi di daw de gauche à muy grand frère muy ku am jom xam nga di xam ne làmb temps ga te liggéey ga te am na mbër yoo xamante ne nii tey dañoo war a roy ni moom mais toog suñu waxee mbër nga bañ ko jël soo xëyee soo sa daag di wër bureau jàmbur yi di fëgg di ñaan xam nga kii defu loolu dafa am fuga am fayda am jom ñëw jël avance bi pour bëre lépp lu si am rek ñoo ngi ñaan suñu borom defara ko jàmm mu muuroo ko parce que làmb ga rek que le meilleur gagne ni ma ko mënee daan noonu la ma mënee daan di ñaan suñu borom suturaal ñu bés ba rek. dégg nga ko nee na jël na avance bi mais dafa ameel ay supporters am bor. Mhm. waaw non bor bi moom fii bu baax waaw bor bi moom du fii nga koy faye waaw mais di ñaan yàlla suñu boroom rek xam nga. waaw euh, amul problème quoi waaw am na si lu mu jógee. gaynde gunu gaañ amul benn problème waaw na gën a liggéey rek na ji te xam ne Ibou Ndiaye moom. 24 heures sur 24 day entraîné Ibou Ndiaye mu ngi si compétition yi waaw Ibou Ndiaye mu ngi toog di xaar jour combat ba jot ñu ñëw remplir suñu contrat waaw. nee moom kenn du ko fayee bor de. mooy li may wax rek xam nga ñëwoo sama gaale def benn émission ma wax la tey moom ndeysaan ku ñàkk ki ñaan la wax na ko ne ñun ay nit ñu am jom lañ taxawuñu si bureau kenn wala si mairie kenn di ñaan. xam nga li am solo mooy àdduna boo tollee ci liggéey nekk ndaw liggéeyal man bëgguma lu yomb wax naa la ko. te dafa mel ne loolu la suñu borom di confirmer tey. tey Ibou Ndiaye champion la boo xam ne ñëpp dañ ko fi bàyyi tey fi mu toll affiche bu doy waar la affiche bi sax moo gën a graaw grand combat parce que buñ ko déggee dañ ne non mais Nguer lu muy defati nii. mais Ibou Ndiaye dinañ ne waaw dinañ waaw ci xale bu ës blende ci ku gën a dee mooy li ma la wax man sama adversaire sama àdduna bugguma lu yomb. parce que du ma taxaw di tàllal kenn loxo moo tax tey ku mel ne Ami Collé mention spéciale jigéen ju mën góor moom dañ koy ñaanal yàlla parce que c'est une femme battante. parce que tey bi ma woowee wallahi azim bon wax nañ ci wax bu gàtt rek mais dama xam ne jigéen ju mën góor la moo tax dama dama beese sama loxo bu baax. pour jàppale ko moom parce que bëgguma muy ut di ñàkk. comprendre nga mu nekk champion boo xam ne ndaanaan la def na lu lu ne ci làmb ak lutte professionnelle. tey la ko yàlla dogal parce que tëggoon nañ suñu combat muy ale maa ngi koy jaajëfal mu am nu mu demee moo tax combat bi mujjul antu. mais fii la ko yàlla tuddee li am solo rek mooy ñun dañoo war a joxe un bon exemple. mooy lan wax lu tuuti jëf lu bari. mooy comme li ma wax liggéey nekk sama recours liggéey mu nekk si liggéey. jour ba mu ñu jëflante wane wane wane wane wane jom wane fule wala fayda. mais mais ci ak li nga li nga jógee est ce que jël Obeuly du risque ci yow. man nee naa la man su ma live lépp risque la boo risqué wul dara doo am dara. man su ma live yëpp yëpp nee naa la mooy li mu wax dafa wax wax boo xamante ne wax ji dafa tëju. mooy ñun nekk ñu ay mbër yoo xam ne dañuy taxaw di tàllal loxo liñ gëm mooy dañuy ñafe bés bu nekk ñu bés du rëy si ñun parce que bés bu nekk am nañ ko bés bu nekk am nañ ko. léegi li ñuy ñaan yàlla rek mooy que jour bi yàlla defal ko jàmm defal ma jàmm yàlla may ñu ndam. incha allah nee na nga na bu baax de. waaw daf maa dolli jom. loolu kañ boo ko waxee mbër mooy am na lu fi nekk moo tax mu may ñaax ne da nga war a entrer parce que dafa bëgg bu ñu ñëwee simeeku ñu xam ne ay mbër simeeku nañ te bu soobee yàlla loolu dina am incha allah bu soobee yàlla loolu dina am obli mu mel ni sa grand ngay bëreel moo la jiitu ci làmb expérience la contre la jeunesse lan la ñu mën a xaar incha allah jouru làmb ji Obeuly lan lay andi Obeuly bu bees la ñuy gis wala Obeuly ban doon gis la ñuy gisaat. waaw di ko sant di ko gërëm rek parce que xam nga moo tax làmb dafa nekk loo xamante nii dafa commencé sooxe parce que mbër yi tàppet dañoo bëri ami kooga mi bu nga waxoon ñaata mbër lañu woo ah kon ñin la tuddal dafa bëri ñu daw dooma bàyyi ay ñoom Jordan ay ponkak yoo xamante ne nii jaral na leen ñu xëy sax di am yoo xamante ne du ma sax wax seen tur ponkak yu tooy noonu nga xamante ne nii yow too nekk 2 mètres di peser ay 150 kilos ah suñu la nee jëga combat au bëgg ngay naan fii nga xari jaar fee nga bëri daal mais Nguer moo ñu may sens waaw man moom moo ma may sens di ko sant di ko gërëm xam nga di ko jox wàccuwaayam di ko jox cër ak respect combat bi nag xam nga di si woo ñëpp waaw képp kuy yow xam nga ne stade bi séeréer yi moom woote na rek waaw woote teel da ngeen a a da ngeen a war a waxante yeen ñaar waaw combat bi lan lañ ci mën a xaar bëre xeex non non combat moom ngeer moom li ma ko mën a xamal mooy ngeer moom arbitre bu nee prip hmm. damay dox si kawam. ah waaw. ngeer ngay bëreel de. ngeer ngay bëreel te xam naa ne ngeer jàmbaar moom day taxaw xeex mais arbitre bu nee prip ngeer man maa ngi ci kawam dinaa mel ni oto bu camion bu amul frein si kawam. waaw moom nag moo xam nu muy résister googu ak nu muy gëjëntee mais man bu arbitre prip maa ngi ci kawam fu mu taxaw dama ko fay fekk. nera foo taxaw mu fekk la fa waaw boo woowee naar ci guuxum soow da dimbali rek. da koy na sant yàlla am na lu ma la waxoon sama gaale boo seetaanee suma combat yëpp damay am wala ma ñàkk mais arrière un pas am kon boobaa dañuy dalante parce que essentiel day am incha allahu rabbi moom xale la dinaa ko woon ne nag fi mu dal moom tamit baaxul étincelle la fi fekk bu soobee yàlla dañuy talante bëm. mën nañu xaar ngeer sul tànk yi. non jëflanteeg Ibou Ndiaye non lu ne mën naa ne moom daf maa dimbali nee nga daf maa avertir ne ma benn bi mooy deuxième fois mu ne fu mu nekk dinaa ko fekk te borom jom lay waxal. kon nag tey tey tey tey tey tey tey maa ngi woon samay entraînement mais su ma doon def benn dinaa def téeméer ndax moom ci kàttanu yàlla parce que xam naa ne champion la tëdd di nelaw du ko daan parce que ndaanaanu ndaanaan la kon lépp lu ma mën a def tous les moyens pour mën a am indi doole indi kattan naa la wax benn affaire de. mooy ngeer bu amee doole am kattan kenn mënu ko si làmb. ah bon te lépp lu mu jar pour ma am ko dinaa ko def si kàttanu yàlla incha bi jaral na la lool. waaw li may ñaan rek ko ñaan sama bopp moom laa koy ñaanal muy wër di ko ñaanal sama bopp yàlla nañu yàlla may wëral ba ba jour ba yàlla may ma ndam incha allah mën nañoo xaar combat bu gaaw non déggool ma la moom dafa maa dimbali parce que dafa maa teel a wax li ci boppam kon loolu mooy man bépp arme boo xamante ne mooy indi ndam rek war naa ko mën a teel a préparer incha allahu rabbi mooy lan entraîné indi doole te bu bés baa ci kattanu yàlla bu ma simee ko dinañ xam ne beneen ngeer ñëw na incha allahu rabbi mën xaar ngeer niwlu jeex na tànk yaa ko wax non noonu que adversaire bi moo jar lool mais Ibou Ndiaye gaynde la gaynde gu tëx la gaynde si muy matti sa ndaanaan la loo wax ci moom rek bàyyi nga lu des ci moom mais man damay bëgg di bëreeg ndaanaan parce boo bëreeg koo xam ne yaa ko mën wala du mbër boo ko daanee ban chance lay mais boo daanee ko mel ne Ibou Ndiaye ji bi bi dañuy dar gémmiñ te loolu li la koy jox mooy liggéey bu mat sëkk xam naa ne du ma may dara te su ma ko daanee damay xam ne man mbër laa daan man bëgguma daan mbër ay ayca mi ngi noonu nee na bëggul daan ka nga xamante ne bii euh, mbojo mbojo la dafa bëgg daan champion moo tax mu jël la. waaw noo man moom wax dëgg yàlla ngeer bu mu buggee daan moom xam nu muy def day dem ba moo xam te Lac Rose comme ñun fi ñuy yéegee ay din mm. mu dem ut fa néeg lu des si combat ba yëpp. mu dëgg fa bu bu mu gis kenn bu ko kenn gis na fay téléphone am yi di liggéey. ba jouru combat ba parce que Ibou Ndiaye moom ku am ku bëri doole moo koy daan waaw il faut nga yor doole ju wóor grand bi am na doole de xam naa ne grand bi am na doole mais grand bi moom su ma jàppee si catu weeyam sax day am programme <laughs> ah bon grand bi ma jàppee si catu weeyam sax day am programme waaw di woo nag di woo di woo di woo di woo di woo di woo ñëpp xam nga di woo suma suma suma képp kuy bëgg Ibou Ndiaye Diofior xam nga di woo suma waa dëkk waa Diofior xam nga di woo waa région de Fatick di bëggee séeréer yi fépp fu séeréer nekk di bëggee Ibou Ndiaye Diofior maa ngi koy woo di nga naan li ñu doon jooy am na muy combat. parce que fan si fan si xam nga yow gis nga public bi simple bi fu ma jëm dañ may topp xam nga dañ ma daan topp Ibou Ndiaye da nga war am combat da nga war am combat combat am na nag suñu grand frère Nguer may nañu sens di ko sant di ko gërëm xam nga di ñaan supporters yi amateurs yi nañ préparé incha allahu rabi public bi gars yi si simple bi ñooy ñëw stade incha allahu rabi dinaa duy stade ba mu jënd billet yi di nuyu euh, yi may jàppale yëpp xam nga ku si mel ni suma grand frère suma xarit euh, Papa Kori Faye Go Faye maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm maa ngi koy woo si combat bi borom parcelle borom mouvement réaction xam nga di woo mef xam nga di woo Demba Soare di woo kii fa may jàppale di woo waa Dubaay ñoom xaadim ñoom Koojoon di wax diaspora bi séeréer yi nekk si diaspora bi yëpp maa ngi leen di naan xam nga euh, bu Ndiaye am na combat nañ commencé sama grand maam waagi joom maa ngi koy woo doomu Moussa Gamer Youssou Diom ak Karim Sène Moussa woo si combat bi maam waa gi sa combat ga bëgg naa nga jënd ma sa ay billets xam nga Ousseynou Fall France mook jabaram xam nga maa ngi leen di nuyu bu baax di ngeen Fatou Bass maa ngi leen di woo si combat bi ngeen ñëw jàpp si autorités yi nekk Diofior yëpp ñoom Aïssatou Koumba maa ngi leen di woo na ñëw jàpp si combat bu baax a baax waa Diofior na ngeen jug te xam ne seen doom moo xew ge fépp fu doomu séeréer nekk waa défense séeréer yi dawakatu sareet yi sama gars yi mhm. mafia bi ñoom daawda su ma waa koñ waa interset waa parcelle 1 ba 26 maa ngi di woo di sant suma waa écrit bu baax a di woo ñëpp xam nga di woo di di woo ak di sant ñëpp di gërëm ñëpp mais mais mais ana nag yi waaw nag yi ñuy ngeer sax jour combat maa koy jox nag bi muy rey ah, ah loolu foor na ay jël wooteel ndeysaan loolu sama xol seet na si bu baax xam naa ne lépp lu mu wax moom dina ko def parce que nitu kàddu la mm. Eh, maa ngi sant yàlla bu baax di woo waa Pikine di woo waa mm. Pikine di woo waa Sénégal yëpp ah mm. rawatina monsieur le maire Isaka Djibi la xam nga rawatina maa ngi woo monsieur le maire euh, Wal Joojo di ñaanal di woo Xaadim Lamine kan di woo suma mafia bi tëli bu mag fi mu dëkk ak waa Pikine wasalaam yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm di wax jërëjëf Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall jaajëf Aïcha mi ngi noonu kon du ñu def rek lu dul woo promoteur bi nga xamante ne bii moom mooy Jax moo taxawal événement bi Jax nga ñëw rejoindre ñu ci euh, plateau bi ñu waxtaan ak yow surtout ci diggante le 22 ak la euh, le 29 ay ca ngeer waaw waaw rawatina suma booy waa écrit Wakhinane Seydou ku mel ne booy guy gi. ñoom jaxasoo ñoom fare maaren ñoom alias Bale vraiment. booy yooyu booy yu nice lañ guy yi mu nii suma frère la yàlla na ko yàlla na leen yàlla may ay combat defal leen ndam. parce que booy loo xam ne maa ngi ci écrit mais vraiment père sax lañ may woowee. te pourtant maguma leen. kon loolu si rafet jukko la bokk kon maa leen di jaajëfal di leen ñaanal. yàlla defal leen jàmm di ko ñaanal Sénégal di ko ñaanal ñëpp di ñaan tamit mi yàlla def fi jàmm mention spéciale mention spéciale Jax. combat bi nga taxawal amateur yu bëri dañ ko doon xaar amateur yu bëri bëggoon ko. est-ce que taxawaloon combat bi yomboon na. combat bi ñii ñoo ko taxawal man xaw ma dara ci combat yi. man man lutte simple mooy suba affaire. Ami Collé moo ko taxawal yooyu ñoo ñu taxawal affaire man di xam man man kii laa rek. ok dara laa ci xamul. ok mais taxawal nga koom taxawal nañ combat bu neex. waaw ay champion lañ nag moom. Mm. waaw mm. mm. nga jëm ci nga jëm ci mën na wax ay journée yu bëri le 22 ak le 29. le 29 waaw mm-hmm. waaw le 22 ñoom. Euh, liis njaago la ak ardo waaye li ci biir moo garaaw caatu ay daang ci biir alaaj alaaji njaay waaw mhm. sox sox mu ngi ci biir borom Joal euh, kii ci biir euh, boy maroon mhm. petit seleng ci biir mhm. bu Sarr Diof yor mu ngi ci biir Thié mu ngi ci biir ak kanati ak euh, mbin ngaaj mbin ngaaj yi ngay wax boy Petersen mu ngi ci biir ak yeneen boy yu garaaw waaw foofu incha allah le 22 fii ci arène nationale waaw. grand combat bi mooy Liss Ndiago ak. Ardo Liss mm. ñooy grand combat bi waaw. Mm. le 29 nga def nga nga nga def lu kenn ah, mosut a def. non le 29 dañuy toj dëkk bi maak Yaxya kooku moom jarul wax ñii ñëpp xam nañ li xew ku nekk yaa ngi làqu di defaru di préparé. Mm. bàyyil ba affaire bi démarré rek. waaye rek rek bu ñëwee gars dañ koy tër bokkatul amatul compétition. ah bon. kii xam na li ma koy wax <laughs> lutte simple la ñuy def lut simple da ngay bëri ay. kon da ngaa bëgg a écarter rëg rëg ci ma ne bu ñëwee maa ko wax yow rëg rëg boo ñëwee dañ lay daan. Eh. booy dañ lay defal af bagage ñaari nit ngay daan ñetteel bi ñu tër la signal sa licence nga ñëw. <laughs> incha allah le 29 nga teg 11 millions tegal ko euh, mbër yi amateurs yi lan ngay xaar ci ñoom. ah amateurs yi xam nañ leen war. Uh-huh. Jax moom du woo kenn day da lay defal événement bu rëy nga xam ne yaa fi ne ñëppay ñëw bu soobee yàlla. Uh-huh. jarul woote. ay ca kàddu kontaan ci yéen bu baax ci liggéey bi ngeen di def kontaan ci mbër di leen ñaanal jàmm ak wér ba ci bés ba di leen ñaanal yàlla may leen ñu leen jàppale bu baax parce que làmb dafa metti te ñoom amuñu doole noonu te ñi leen topp dafa bari préparation combat metti bari frais autorités yi ñu ngi leen di ñaan ñu jàppale xale yi bu baax ci ci ci kaar ya yi indi xale yi jàppale leen ci ci ci ci bu ko defee mu nekk événement bu rëy jàppaleen aussi ci préparation mystique baak préparation dund ba ba booba parce que mbër dafa war di lekk bu baax di récupérer ndax combat arène ak combat simple yëpp dafa metti bëri ci boppam moo metti alors autorités yi nañ leen ñëw jàppale xale yi loolu la leen xale yi bu ñoom bu ñu xewlee xale yi génn donc bu xale yi xewle dañu war a ñëw jàpp ci loolu c'est le minimum voilà ñun mënuñu lu proposer événement mais xale yi faut ñu encadrer leen. pour que pour ko jàppale leen. pour que pour que yëf yi di gën a rafet. Mm. di gën a baax. Mm. bu ko defee ñeneen ñi gën a am courage. Mm. waa lutte simple boo gisee ma leen di tëgg man comme maay maa nekk ci lutte simple bi dama bugg xale yi di génn. ñoom tamit ku wane sa bopp yeneen promoteurs yi sama moroom yi gis leen mun leen jël yóbbu. man fi ma ne rek laa ne du ma fa dépassé de. waaw damay génne gars yi rek jox leen gars yi jëlaat ñeneen booy andiwaat. loolu mooy sama rôle man. yaay promouvoir booy. voilà dama leen di promouvoir pour ñu dem. voilà <laughs> di leen gërëm di leen sant di leen jox rendez-vous le 22 d'abord mm-hmm. ensuite le 29 pour un super gala de lutte simple ici à l'arène nationale mm-hmm. merci beaucoup ayca mi ngi sama mbokk yi mm-hmm. nañ gën a jàpp ak a jàkk bu baax a baax a baax a baax bu foog nga